sëriñ Mbàkke Njaay nee na am na mbégte kontante ginnaaw xarit yi nga xam ni ñoom la am muy xaritu APR yi gañe nañ loolu di tappale lu tax lu tax àndutoon ak APR dem ca élection ya jongante waaye dem moom dong amul dara lu ay zéro naan waaye man élection yi bég naa ci ndax sama xaritu APR yi gañe nañ su dëgg woon ci yow njaay da ngay dem ànd jeeg sa xaritu APR yooyu waaye doo dem mal sa bopp ba nga demalee sa bopp ñu duma la kon warulaa neex ba nga naan kontaan naa ci donc loolu da ngay wax rek njaay ngir daal ñu woo la nga mën dem soobu ji ca la nga xam ni moom la ñuy tuddee soow ma naqa saale la muy lu doy waar Serigne Mbacke njaay mënoo ñoo nax ñun ay nandite lañ mes chers compatriotes